ñaari weer laa toog toog ak ñoom ñu waxtaan ñu wax ma seen i jafe yëpp boobu ba léegi jóguma ci maa leen njëkk a jox subvention un million pour ñu ciy fay ay facture courant loolu mat na juróom-benni at kon xaaruma ba ñuy couper ay mairie feneen may joxe ñu jëlee ko un million yóbbu ko ci trois millions depuis ñetti at ñetti poste yëpp at bu nekk ku nekk di nga am un million boo xam ne pour fay say facture d'électricité la chaque at ñu jël fonds de dotation yi jënd médicament pharmacie régionale d'approvisionnement pour jox leen ko parce que xam ngeen ne poste de santé lu mu rëy rëy lu médecin xarañ-xarañ bu amul euh, euh, ay garab du mun faj donc ñu jël valeur u 9 millions tey jagleel ko ñetti poste de santé yi ñaari millions yi ak genn wàll pour euh, ay médicament ñetti millions yi pour ay factures courant ak ndox ñetti millions yi ak genn wàll pour suñu participation pour ñetteeli ambulance bi nga xam ne mouvement MSI te suma xarit suma wóllëre la maire de Mbacké président du mouvement international jox ñu ñaari ambulance war ñu indil ñetteel bi li ñu war a participer ci ambulance boobu mooy ñetti million yi ak genn wàll boo ko boolee muy juróom benn million commune yi ko man bariwul de am na ñu ko am mooy waaye duñu ko def waaye man sama conseil dama leen di gërëm parce que bu ma leen waxee ne santé laa bëgg jàppale rek ñu jàppale ma ciy kontaan di gërëm bu baax yi parce que bu ma leen ko doon jox ñu koy yàq du ma leen ko jox de te lii fonctionnement kese la boo demee ci wàllu infrastructure ña ngay waaj a tabax logement sage-femme bu maternité bu bi naaw bi ñu defee bungu njaan boo demee ca Corosement ña ngay àggale poste de santé bi nga xam ne mooy ñeenteel bi te war a ñëw nag ak ambulance ñu fas yéene ko inauguré au mois de janvier loolu bu ñu ko amee ñan sant yàlla parce que wërgu yaram loo mënti am te wëruloo rek doo dara donc loolu mooy solo bés bi tey ma ci sant bu baax ICP yi di ci sant président comité yi di ñaan garab yi yàlla na képp ko ko fajoo nga wër mais effectivement li ñu leen jàppale yàlla may ñu kàttan ba ñu mën ko def déwén waaw xam nga monsieur le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa nekk suma mag boobu nekkul premier ministre ñu bokk sant Dionne ma jox une petite boutade Mohamed Boun Abdallah moo ma wax il y a sept suñu sant mbay du Dionne waali la may sa jon sunu maam dafa amoon jon mais sunu sant waali la jon boobu ñu ko doon dàkkantale ba jonn bi ñëw kooku ma séq ak moom lu ëpp fukki at mu nekkoon directeur de l'industrie ma nekkoon ndaw nekk gu moon ay responsable te ñuy séq ba yàlla def ko premier ministre ma xew le mu ñëw Ngoundiane mu mës a xam ci man lu baax lu rafet waaye waaye bu waxul ci man lu baax loolu mooy jaaxle lu mu xam ci man la témoigner fekk nag may liggéey bu fekkoon ma yaafus kon du ñëw sax ma dajale premier ministre agi bu Soumaré le ministre de l'élevage le ministre Augustin Tine ak moo ami Alioune Sall di rakku président de la République nga xam ne moo jiite meeru Sénégal yi ma nekk secretaire général bi ñu ànd di liggéey mu wóolu ma di ma dénk lu bari gis ci man njàmbaar ak xarañ bu waxaat ci man lu rafet lan lay wax ci man bu fekkee nag wax ju baax ci nit mooy tey mu jëyut joxe ay bagaasam toxu ñëw sëy si wax dëgg yàlla kon dana yomb de PDS ba mu fi nekkee ci diggu nguur gi ma nekk ci opposition bi dama ci amoon ay xarit man maa ngi ci mouvance présidentielle bi ñoom ñu yore nguur gi ñu leen di jàppale donte bu ma d'accordul ci yenn yi tamit dama ciy ànd ak teggin ak sutura loolu moo waral ñu wax wax ju baax ci man ma ciy kontaan ci samay kanamu mbokk waaye ku xam mbay jon xam ne nitu ngor la nitu ngëm-ngëm la nitu valeur la politique dugguma ci pour ndomba dugguma ci pour ay post APR je les respecte beaucoup bu ma waree ànd ak ñoom ëllëg dinaa ànd waaye c'est pas à l'ordre du jour ma priorité c'est de travailler pour ce pays liggéeyal dëkk bi pour mu jëm kanam maa ngi koy def sama liggéey tous les jours maa ngi jàppale des hommes d'affaires ñuy développer Sénégal di liggéeyal Ngoundiane di liggéeyal gox bi mais président la République bu jëlee dogal ne terrorisme bi dafa nekk un problème d'insécurité nationale mu jël ay mesures dama koy encourager parce que tamit c'est lui le garant de la sécurité des bien et des personnes dans notre pays ku am jafe-jafe moo la war a taxawu aar la waaye nag li ma koy dénk mooy il faut mu créer les pour que sénégalais yëpp mën na ànd ak moom ci xeex boobu muy waxeeru jihadisme nga xam ne ay nit lañu dañuy mbubboo lislaam ñëw di faat ay doomu aadama yoo xam ne seen yoon nekkuñu maanaam seen innocent loolu l'islam santaane wu ko kon képp kuy jullit ñu am un islam soufi confrérique loolu da nga koy condamné waaye ñu def ko ci dal def ko ci waxtaan te loolu président mënu ko def sans une union sacré de la classe politique mooy wax pour classe politique nag Benno Bokk Yaakaar la ak opposition surtout le parti démocratique sénégalais moo tax may ñaax monsieur le président mu lancer un nappel pour que le dialogue et le calme reviennent à l'Assemblée nationale pour qu'on crée les conditions pour que la dissidence au niveau di PDS ne prospère pas. Parce que n'avance pas le président de la République. C'est d'où avantage du président la République parce que du développer démocratie. waxuma ko nag mu def ingérence waaye am na kattan am na mën-mën pour véritablement dajale ñëpp parce que bu classe politique bi àndee ak moom rek kilifa day nee ànd ak moom lu mu bëgg ci xeex bi am na ko. parce que Sénégal nag du France bugguma ñuy toppaate suivisme mu baaxul France Sénégal du États-Unis amuñu doole yooyu am c'est pas parce que France jóg na pour xeex euh, jihadisme na mu koy xeexe ñu koy xeexe amuñu kattan boobu te li xew mbërki démb li xew démb Mali jombuñu parce que ma Mali mi ngi ci buntu Sénégal te terroristes yi ñu ngi Sénégal donc il faut ñu ànd ci ak dal ak teggin waaye def bloc pour véritablement jihadistes yooyu nga xam ne dañ leen war a condamner dénoncer leen ñu fekk leen fa ñu nekk ñu bundu leen ba Sénégal kenn du fi dugg merci beaucoup thank you